yi ñoo nekk di dem xale yi di leen muure ministère yi def nañ ba sonn ñu tourné dem xale di leen topp di leen tàgg gis ni vous êtes en direct sur Jotna Média gis ni ni premier pont la premier pont yoonu ñuy gën a renforcer seen i seen i ak safaas ak euh, safara suñu taal foofu ñu taal de l'autre côté ñu koy gën ñu ngi koy gën a renforcer gis ngeen xale yi ñu ne kenn du jàll ñoom am nañ temps ba bëgg a dee waaw taxaw fii ba heure bu leen neex bu leen neexee sax ba fajar mën nañ ko jubiler fii ba lu ma ci jaaxal mooy kay ñu nar a bis yi ñu ngi retourné ñu ngi tourné de l'autre côté oto yaa ngi tourné de l'autre côté あの松屋は花いのの命名 doon dem ak euh, yenn bus yu jógee Cap Skirring mais jotoon nañu génnee barricade yi fële ne euh, côté Lindiane waaw jotoon nañu génnee barricade yi nekk côté Lindiane mais ñëw nañ ba euh, premier pont ah, non deuxième pont gars ñu ne leen du ñu jàll booy doon xeexee fële ne ci comment dire sax pharmacie ñu ñëw ba fii ñu ne leen du ñu jàll léegi nii ñu ngi premier pont yi militaire yi ñu ngi taxaw. bus yi ñu ngi de l'autre côté taxaw bus yi nga xam ne dañoo jógee Cap Skirring booy ñu ne leen duñu jàll léegi gars ñu ngi nii taxaw mooy lool militaire yi mënuñu si dara après mooy lool gars ñu ngi taxaw ñu ngi nii taxaw parce que booy dañoo defar fii benn barrage bu am solo jël ay suuf kii ko def sotti ndox kii jël ay saaku sol ci suuf teg ko comme nu ñu defoon la pas passé kër Góor booy loolu lañ def gis ngeen de l'autre côté yaa ngi taxaw militaire yi yaa ngi bi jàpp seen ñaango waaw gis ngeen ñu ngi nii ñoo ko gisandoo nii en direct sur Ziguinchor sur Jotna Média rek en direct à Ziguinchor sur Jotna Média xale yi ñu ngi taal seen fo ci diggu tali bi ñu ne kenn du